أعوذ بالله kanam bu soppiku ci fànn yu bari loolu di firndeel wàccaay wu am solo wu ñu nekk ngir jëm ci bis bu màgg bi nga xam ne moom lañu dëgmal ci dëkk bu sell bii di daarul moxti di dëkk moo xam ne jàmbaar ja maam Thierno Birahim daamal daarul moxti moo ko sancoon fukki fan ak juróom ci weeru saabaan at mu nekk ñu di ko ci fàttaliku Daaru Muxti nekk dëkk boo xam ne mooy ñaareelu capital bu mouridisme ngir dox jëm ci bis bu màgg bu sell boobu ñuy fàttaliku jàmbaar ji ko sancoon di maam Thierno Birahim loolu tax ñu daal di fay doxantu ngir dellu siwaat ci lenn ci histoire jàmbaar ja maam Thierno Birahim ki ñuy xamale ak moom di kenn ci njabootu dëkk boobu di Serigne. mu dëkk Daarul Moxti di kenn ci taalibe yi borom Daarul Moxti nag ku ne xam na ne kenn la ci ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba yàlla dogal mi ngi feeñe jamono ci dëkk bu ñuy wax Poroxaan Poroxaan nag ku ne xam na ne ay jafe-jafe yu metti la sëñ Mor Anta Sali jànkonteeloon bi mu fay dem ànd ak soxna jaar bu Busa ànd ak soxna eh, Faati Ise mi nga xam ne mooy waajuru borom Daaru Moxti ku ne xam na ne sëñ Mor Anta Sali dëkkoon na Mbàkke Bawal waaye ginnaaw bi itam dafa jóge Mbàkke Bawol ñëw dëkk ci ci dëkk bu ñuy wax xuru Mbàkke xuru Mbàkke googu mën naa ne carrière soxna jaara li ëpp ci ak dundam foofu la ko def mook sëriñ Mor Anta seli foofee nag fa lañ jóge dem ci dëkk bu ñuy wax Poroxaan Poroxaan li waraloon sëriñ Mor Anta Sali ñëw fa wax nañ ne eh, ba Jaxu dafa am jaxaat bu mu doon def waaye ci biir jaxaat boobu mu wax ne day dajale mboolem boroom xam-xam yi nga xam ne ay borom xam-xam yi diine lañ te di ay kilifa mu indi leen Saalum ndax booba dafa am jihaad bu mu bëggoon a def mu moo taxoon muy dajale boroom xam-xam yi. booba nag ci la jël Serigne Mor Anta Sali indi ko foofa booba maam Maba Jaxam mi ngi ci dëkk bu ñuy wax Nioro Maamu Nderi waaye sëñ Mor Anta Sali wax nañ ne daf koo wax ne ko mankat dinaa mën a ñëw nekk ak yéen waaye nag du ma mën a dëkkandoo ak yéen ci benn barab ndax dafa yor daara di war a tërbiya ay nit. ak a defar ay nit loolu moo tax du mën a dëkkandoo ak ak ak ak jamono yooyu nga xam ne ñoom ñoo nekkoon buur yi di màbb moomu. waaye nag bi mu ko nangulee loola ak ca jamono yooyu mbooleem kilifa yi diine yëpp ak borom xam-xam yëpp nanguloon nañ ko màbba jaxu loolu moo taxoon sëñ Mor Anta Sali ñëw ci dëkk bu ñëw wax Poroxaan ngir jege ko ba lépp loo xam ne dana ko soxla woo ci wàllu diine ci wàllu lislaam ci wàllu sariya ci lépp loo xam ne lu ñuy lay doon ci wàllu sariya sëñ bi mën ko ko àtteel loolu moo tax sëriñ Mor Anta Sali dëkkoon ci dëkk boobu ñuy wax poroxaan foofee la nekk ba mu fa nekkee nag yàlla dogal bi ñu demee ba nga xam ne ci waxtu yi nga xam ne ci la borom dëkk bii nga xam ne tey mooy Daaru Muxti di maam Cerno Birahim war a feeñ jamono am benn euh, atte bu ñu doon def boo xam ne ci jamono yooyu wax nañ ni sëñ Mor Anta Sali àndu ci woon te bëggu doon atte ba fekk ko fa loolu moo tax mu ne atte bi du ko fekk ndax bu ko fekkee day saxal ne kon li li ñuy nar a atte na ci loolu moo taxoon sëriñ Mor Anta Sali daal di jóge euh, dem ci dëkk bu ñu wax Njaabakunda wax nañ ne bi ñu waajee bay war a dem rek ci la borom daaru moxti gane àddina ñu jël ko foofu yóbbu ko ci dëkk bu ñu wax Njaabakunda nga xam ne loolu ñuy wax ngénte foofee ci dëkk boobee fa lañ ko defale borom daaru moxti nga xam ne ay soose ñoom ñoo fa nekk ginnaaw bi itam la yàlla dogal mabba nelaw bi mabba nelawee sëñ Mor Anta Sali daal di jógewaat Poroxaan daal di ñëw ci dëkk bu ñuy wax kër Amadou yàlla fekk booba Serigne eh, Lat Joor dafa àndoon ak mabba ab jullit bi nga xamee ne yàlla dogal na nag ñu jóge foofa ba seen nguur jeex ñu ñibbi si Kajoor um, sëñ Mor Anta Sali daal di ànd ak Lat Joor loolu moo waral bi nga xamee ne Lat Joor nekk na kër Amadou Yàlla euh, nekk na Paatar sëñ bi nekk kër Amadou Yàlla moom sëñ Mor Anta Sali ba noonu la jógewaat foofa ñëw ci dëkk bu ñuy wax Mbàkke Kajoor dëkk fa moom sëñ Mor Anta Sali euh, borom daaru mii nga xam ne nag moom lañu bëgg a fàttaliku tey euh, ci jamono yu métti yooyu la gane àddina ci jafe-jafe yu mett yoo xam ne ay waajuram la àndaloon euh, nga xam ne dundam gépp ay jafe-jafe la ko la la la ci jànkoonteel. bi nga xamee ne nag ñëw nañ ci dëkk bu ñuy wax Mbàkke Kajoor foofu la sëñ Mor Anta Sali nekk nekk fa lu ma ramat at wala ñaari at daal di wàcce ab liggéey bi mu wàccee ab liggéey nag sëriñ bu mag bi bi mu amee at wala at at ak tuuti mu daal di taxawal yoonu murit bi mu taxawalee yoonu murit nag ci la rakkam ji daal di lax saayu nag ànd ak moom ni ko sëriñ Moussa ko waxee ba muy xaleel la daal di ànd ak Bamba. di roy jéegoom ya ak tànkam ya musta tàqalikoog moom ci waxtu sexar yi musta tàqalikoog moom ci waxtul kibar yi loolu nag lu lu lu lu xóot a la ndax euh, boo xoolee bi nga xamee ne Serigne Touba dem na ci géej gi am fa juróom-ñaari at day mel na loolu kon duñu ñu gisante ci saahir day mel ne gis bi gisante boobu ndax sëñ bi dafa wax ne mosu ñëw tàqalikoo kon day mel ne sëñ bi am na neneen nu ñuy taxoo moom am na neneen nu ñuy ànd ak moom noo xam ne bukkut yéen ñaar ngeen bokk nekk ci ay barab rek ne nga nekk ci lim bëgg wala nga nekk ci lim digle loolu mooy taxaw ak sëriñ bi waaye man ngeen a bokk ci benn man ngeen a bokk nekk ci benn barab di gisante ci gisante saahir te du tax sax ngeen ngeen bokk fu ngeen nekk kon sëñ bi ci boppam dafa am fu mu nekkoon foo xam ne foofee itam ku ko fa fekkut wala ku fa nekkut kon day mel ne boo nekkee moom ci nekkub saahir nekkub saahir bi itam nekkook moom ci nekkub baatin te sëñ bi dafa wax ne borom daaru mosuñoo taqalikoo benn yoon kon noonu la àndee ak ba sëñ bi sa taxawale yoonu murit ba ñëw Mbàkke Bawol nekk fa at ba sëriñ bi ñëwee Daaru Salaam ba ni mu sañ am fa juróom-ñaari at ba sëriñ bi dem ci géej gi nag jël njaboot gi ak taalibe yëpp dénk ko maam Thierno Birahim mu jàngal leen yar leen ndax sëriñ Moussa Ka nettali na ko Cheikh Moustapha Mbacke ma dib xalifa noo ko jàngal koo kooko nawleem newu fa. alxaaji Falliloo nga wan fa Mbacke Thierno ko mottalil bi xayri sakke eh, jàngal na ay rakkam sëriñ sëñ Balla Coro ak sëñ Seex Coro ñooñu ñëpp ay rakk yi sëriñ bi lañ te borom daaru moo leen mottalil ak lenn ci mag ñi nga xam ne bi sëñ bi demee ci géej gi képp koo xam ne sa alxuraan manqué woon na borom daaru mottalil na la ko benn moom ci boppam mu di la jàngal wala mu boole la ak kenn koo xam ne ci njaboot gi lay doon ba li nga war a jàng lépp ci alxuraan wala ci njàngum xam-xam wala ci njàngum sharia nga jàng ko ndax bi sëriñ bi nekkee ci géej gi ci la ci la ci lañ bind kaamilu sëriñ Mouhamadul Moustapha mu fekk sëñ ci géej gi kaamilub sëriñ Fàllu itam ci fekk na ko foofa ci géej gi nga xam ne euh, doomi sëñ Tuubaa yi ak rakk sëriñ Tuubaa yi ak taalibe yi ku ci ne la nga war a jàng lépp jàngal nañ la ko ku ci war a samp kër sampal na la kër nga xam ne bi sëriñ bi yàlla dogalee sëriñ bi ñibbisi ci géej gi ba ñëw ba Daaru naan dafa yónnee woolu maam Cerno bi mu ñëwee maam Cerno di ko génneel bagage yi ak ndénkaan yi nga xam ne sëriñ bi dénkoon na ko ko lu mu génneel ko ko dafa mujj sëriñ Tuubaa ne ko waaw Cerno lii moom euh, ak maandu la wala ak am loo jàpp la daan ne ko ndax sax su fekkonte ne euh, yaw yaa dem man ma des fi di sàmm njaboot gi ak di saytu est-ce que ni ko saytoo ak ni nga ko sàmmee est-ce que danaa ko mën a sàmmee noonu ku xam na ne Serigne Touba lépp lu euh, maam Thierno Birahim lépp lu man Serigne Touba moo ko def ci moom. waaye loolu da nga ciy xame ne kon sëriñ bi sant na ko gërëm na ko seereel na ko itam ak maandu waaye seereel na ko ak njàmbaar seereel na ko itam ne taxaw na taxawaayam ngor seereel na ko la taxoon mu dénk ko lépp yaakaar ko loolee ba sëñ bi demaat gànnaar eh, am fa ñeenti at ba ni sëñ bi ñëwee Jolof ba am fa juróomi at ci 1912 war a jóge Jolof dem Njaaréem ci at moom di 1912 ci la eh, Sëriñ tubaa jox maam Thierno Birahim ne ko na nga sanc ab dëkk fekk lu jiitu mu di ko sancloo mbooleem fu Serigne Touba ma sa sanc rek muy ab dëkk la ko tàmbalee ci Mbacke Kajoor Mbacke Bawol Daaru Salaam Touba euh, ba ci Mbacke Bari Jolof ba ci gànnaar googu ma lay wax ak Jolof yëpp fu ci ne moom la Serigne bi jox ndigal mu ànd ak taalibe yi dem fa sañtal fa sëriñ bi kër ba taxawal fa lam fa war a taxawal lépp ba ba na ko sëriñ bi bëggee mu amee ko noona ci la ko sëriñ bi doo ko jox ndigal nag mu doo ko sanc nag dëkku boppam muy dëkk bii ñu nekk nga xam ne mooy Daarul Muxti di deuxième capitale mouridisme nga xam ne 1912 ci la sëñ Tuba bind ab leetar jox ko sëñ Amsatu Jaxate ne ko fekk boobu maam Cerno ma nga Mbàkke Kajoor mu ne soo demee nga jox ko leetar bi ne ko na sañ ci dëkk ba te gas teen ne lépp lu ko fa fekkut man sëñ Tuba dama ko amut ci la ñëwee daaru gi daal di daal di daal di dëkk bi ànd ak taalibe yi ci biir loolu bi mu ko sancee ba noppi dafa sancaat yeneen i dëkk sax yoo xam ne dañoo wëraat daaru nga xam ne foofu fi la daaray tërbiye yi nekkoon ak daaray xam-xam yi ak daaray tërbiye yi am na ci dëkk bu ñuy wax Cinkooli ginnaaw bi nga xamee ne maam Thierno sanc na ko sëñ Ousmane Noreyni la ko jox am na ci dëkk bu ñuy wax Daaru Mornaan foofu sëñ Cheikh Awa Balla moom la ko borom Daaru Moxti jox am na dëkk bu ñuy wax tamit sëñ Balla Mbarakan nekkoon na fa am na dëkk bu ñuy wax tamit Jadme mi ngi ci penkub daaru am na ci itam fu ñuy wax colli am na fu ñuy wax tayba am na fu ñuy wax euh, teewru am na fu ñuy wax itam euh, dëkk yu bari yoo xam ne ginnaaw bi borom daaru sañtee fii sañcaat na ko mu nekkaat yeneen i dëkk yoo xam ne dañoo wër dëkk bi nga xam ne fu ci ne da koy fa war a nekk lépp mu mu ko fa def na fi itam ay teen ci jamono yi mu fi nekk moom borom daaru moxti bënd na fi ay teen yoo xam ne ay teen yu jukki woon ndax xam ngeen ne forage yi ni mu amee léegi ak ni mu jàppande bu njëkk loolu amutoon euh, am na fi teen bu mu fi bëndoon bu ñuy wax madrom madrum teen bu gudd la war naa mat juróom fukki mètres yi teg waaye sonn nañ ca lool coono yoon nañu jànkonte ko ca ngir bëgg fi ndox waaye mu jafe lool wax nañ ne teen boobu ginnaaw bi ñu ko bënnee amul ndox waaye bu guddee dañuy dégg muy def lu mel ne ay bruit am na sax ñu daan wax ne xëy na njëkkul ne fii dafa am gaz wala yu mel noonu euh, teen boobu yàlla dogal na mu ngi ci biir kër sañ am satu am na beneen teen itam boo xam ne diggam ak jumaa ji yaakaar naa matut téeméeri meetar teen boobu lañ koy wax boobu itam borom daaru moo ko fi bënnoon am na beneen boo xam ne itam bu ñuy wax buróor boobu itam borom daaru muxti bënn na ko waaye e, yooyu yëpp borom daaru sonn na ngir bëgg rek sëñ Tuubaa sant gi mu ko sant mu sañ ci dëkk yi ges ay teen ngir mbooloo mi man fee nekk ñu ni fi jaamu yàlla ak liggéey coono bu ne borom daaru muxti jànkonte na fi ak loolu loolu doog a mën a taxaw bi nga xamee ne nag yàlla dogal na borom daaru jóge fi sëñ mu daaw baala moom moo fi njëkk bind e, bënn forage boo xam ne jamono yooyu tubaab bi colonial yi ñoo fi nekk e, gouverneur bu ñuy wax Paul Béchard foofu mooy yilif Afrique yëpp moo ko bëndaloon sëñ a Balla nga xam ne mën naa ne foofa daal ci la Daaru Muxti ta doog a tàmbalee am ndox mu doy sëkk moo xam ne nii dañ ciy naan waaye borom Daaru Muxti lu ne dañ ne ko fi daana fi bay itam mbay mu bari daana fi mbay mbay mu bari alal euh, alal ju bay nañ ko fii ndax euh, daana fàggu ci alal ci mbay ndax xeeti xeeti mbay yëpp daana ko bay gerteeg dugub ak euh, dugub yi ñuy wax dugub bësi ak xeeti xeeti xeeti xeeti dugub yëpp xeeti jiw yi ñuy yi ñuy jiw yëpp nga xam ne mënees na caa amee dara daana ko def daana sàmm itam wax nañ ne amoon na ay nag euh, da amoon na ay xar amoon na ay bëy amoon na ay mbaam amoon na ay giléem amoon na ay xëti amoon na sax li ñu wax ay owa am na bis boo xam ne euh, lu ñuy wax euh, baa baa picc mu mag lay doon moo xam ne am na ñu ko daan sàmmal am na ci bis boo xam ne sax dafa wax ne nañ mu ko yóotal Sëñ Tuubaa nga xam ne fii lañ leen jiitale yóbbu leen njaareen daanañ ci bay mbay moo xam ne itam daanañ ko sofe fii ci ay ay mbaam ñu di ko yóbbu njaareem ndax booba xam ngeen ne oto ni mu baree léegi ak cëf ko ci wàllu transport bu njëkk toon waaye wax nañ ne amoon na lu mat ñett téeméeri mbaam yoo xam ne mbaam mu ne daanañ ko sof bëri ko nga xam ne par ñett téeméeri mbaam ñooy dem suñu àggee ba wàññi ko ñu safaat yeneen ñetti téeméer noonu lañ daan yóbboo dund gi ba am na ci góor guñ daan wax sëñ saaxo sëñ saaxo bay sëñ saaxo ci mag ñaan nag borom daaru moxti la bokkoon dafa am benn bis mu ne borom daaru yow de ñaari yow la ma sa daje leetar bu jóge ci Serigne Touba ne dund amatut ci kër gi ak leetar bu jógee ci borom ndar ne ñi nga xam ne dañ leen a tëjoon ci kaso bi ci prisonniers yi amatuñ lañ leen dundale wax nañ ne bàyyi sañ saako mën naa wax loolu maam Ceerno Birahim nga xam ne kon borom daaru loolu ma la waxoon ginnaaw bi mu sancee dëkk bi itam daf koo sancoon ngir liggéey waaye ngir jaamu yàlla liggéey boobu nag ci la doon fàggoo alal jooju jooju nga xam ne tubaab bi bi ñu demee ba am ñu jàpp ci prisonniers yi ci jamonoy guerre bi ba ñu am jafe-jafe dund ñëw fii ci maam Ceerno Birahim di ko leb dugub wax nañ ne mu ñu leen dugub ji dañ koo bojjagut daal di leen génneel ay saako ñu leen waxtu sàngam na ngeen ñëwaat ngeen xool li ngeen soxla woo lépp ñu bojj ko euh, defal leen ko ci ay saako jox leen ko euh, waa ji dafa wax ne booba boo ñëwee daaru moxti dugub ji dafay mel ne suuf si ndax booba dafa déggul wolof mu misaal mu bëgg a misaal ba rek dugub ji mu ne boo ñëwee daaru moxti dugub ji dafa mel ne suuf si waaye ci jamono yooyu wax nañ ne borom daaru moxti euh, dafa santaanewaat beneen bis ñu bojjal ci tubaab bi ba lañ soxla woo ci dugub lépp ñu jox leen ko ñu bind ko ci ay kayit defe ne borom daaru moxti daf leen koy lebal nee na borom daaru ne leen yéen ñi da amaka ñàkk yéen yi lépp leen tawuma ak yéen jël naa lépp lebal ko yàlla mi nga xam ne moom du jeexal ci waxtu yu ne a ñëw ci lenn ci cosaanal di daarul moxti ci sabab bi ak kan moo njëkk a amal cosaanu daaru wax nañ ne sëñ Modou Awa Balla mi nga xam ne moo njëkk a wutu maam moo ko njëkk a def 1943 bi borom daaru nelawee rek ba ca dé déwén se 1940 43 la borom daaru nelaw 1944 ci la Serigne Mouraw Balla mi nga xam ne moo njëkk a nekk premier xalifa maam Cerno Birahim woo rakkam ju ñuy wax sëñ Abdou Khodos sëñ Abdou Khodos nettali na ko bindu ko ab leetar na ko soo demee ci sëñ Mourou Moustapha moom mi fi nekkat sëñ Touba ne ko dañ koy laaj ndigal ne ko bis bii nga xam ne mooy bisu weeru weeru wi nga xam ne mooy weeru saxbaan wi nga xam ne ci la borom daaru wàccoon dañoo bëggoon laaj ko ci ndigal ñu di ciy jox ci ndigal sëñ Modou Awa Balla mu def ko 1944 ba ba ca déwén sa yàlla dogal 1945 sëñ Modou Moustapha jóge fi sëñ Fallou euh, bi nga xamee ni mu ngi liggéey jumaay Touba ji waxoon na jamono yooyu santaane woon nañ euh, carrière santaane woon nañ liggéey tojub carrière nga xam ne boobu sëñ Fallou da ko daan sant seex yëpp waaye jamono yooyu dafa fekk mu sant sëñ Modou Awa Balla tojub carrière waa Daaru Muxti gépp nekk fa ñuy dugg ci biir kàmb yi ci toj ay xeer di ko sëf ci ay camion di foofee la ñu nekk ba ci suñu jamono ji ñu toll ni weeru màggal gi fekk leen fa nee na sëñ Fallou sëñ Mour Awa baala woo sëñ Mouhamadane rakkam ne ko demal ci sëñ Fallou ne ko bis bu ñu daan defal borom daaru moxti de ñëw na dañuy dem màggali ko ñëwaat am dañuy toog fi màggale fi màggal gi luñ ci am ndigal rek wax nañ ne keroog sëñ Fallou dafa laaj euh, ban bis la ñuy màggalal borom daaru ñu ne ko bis sàngam ci weeru saxbaan sëñ Fallou ne leen nañ ko yóbbu ci fukki fan yi ak juróom ci weeru saxbaan ndax fukki fan ak juróom ci weeru bi nga xam ne bi sëriñ bi liggéeyee liggéeyalee borom ba boromam ba ñëw ba tubaab yi indi ko ba ndar te te joxuñu ko ndigal ngir mu dem ci këri boppam ci la yónnee woolu maam Thierno Birahim ba mu ko wooloo euh, sëñ Fallou nee na seen gise bu njëkk ginnaaw géej gi sëñ Fallou nee na menn mbégte mu gën a rëy mbégteem gisab sëriñ tubaa ak maam Thierno mu gën a rëy ci bis boobu mu mu ko gën a rëy waaye mu gënal maam Cerno ci bis boobu itam amut moo tax moom sëñ Fallou mu ne nañ jël bis boobu yóbbu ci màggalug daaru nga xam ne bis boobu mooy bis bii ñuy màggal muy fukk fan ak juróom ci weeru saxbaan euh, nga xam ne kon euh, sëñ Mourou Moustapha moo joxe woon ndigal lu njëkk la waaye sëñ Fallou moo joxewaat ndigal lu mujj lii nga xam ne ndigal loolu ba léegi sopp koogut ku fi nekkal Serigne Touba ku fi nekkal borom daaru dana yeesalaat ndigal loolu ci yow boo nee nañu màggal màggal gi ñu màggal ko boo nee nañ ko bàyyi ñu bàyyi ko boo ko soppee itam ñu soppi ko màggal gi noonu la demee. dëkk bii di Daarul Moxti mboolem xalifa yi fi mas a jaar wuutu fi maam Thierno Birahim daamal Daarul Moxti Serigne Modou Awa Balla Ndiaye di xamle ne kenn ku nekk ci ñoom jot naa wane kemtulaay kàttanam ak yéeneem ci dëkk bi di Daarul Moxti. sëñ Modou Awa Balla moo njëkk a wuutu euh, borom Daarul Moxti ci 1943. bi mu ko wuutoo 1943 ba 82 loolu sëñ mu daaw baal nekk na daanaka ñeen fukki at lay doon wala ñeen fukki at yu manqué tuuti ci la fi sëñ mu daaw baal nekk lépp loo xam ne ab dëkk aaje woo na ko wala war naa am ci ab dëkk rek sëñ mu def na ko ndax daana wax ne dugg naa daaru waxtu wu ne génn ko waxtu wu ne ngir bëgg dëkk bi jag kon mel na ne e, daana wax ne itam bëgguma kenn ku dëkk daaru du ñëwee ku dëkk ci beneen dëkk loolu sëñ mu daaw ko wax bi nga xamee ne nag sëñ mu daaw baal jigéen na fi 1982 1982 e, sëñ Abdou Khodos Mbacke Eh, daa di nekk xalifa maam Thierno Birahim moom tamit daa di fi nekk ba eh, nekk fi ba 2003 2003 la fi sëñ Abdou Khoudous jógee bi fi sëñ Abdou Khoudous jógee 2003 sëriñ Cheikh Khady wuutu ko eh, am fi fukki at ak ñaar moom sëñ Cheikh Khady moom tamit liggéey na ci dëkk bi ni nga xam ne ni ma la ko waxee ci sëñ Moudou Ball ak sëñ Abdou Khoudous taxawaay yi amoon moom sëñ Cheikh Khady liggéey yu rëy rëy la liggéey ci dëkk bi yoo xam ne xëy na buñ ko doon lim lu yaatoo yaatu lay doon bi nga xamee ne moom sëñ Cheikh Khady nekk na fi ba yàlla dogal mu jigu fi itam rakkam sëriñ Abbas Mbacke moom borom Daaru Muxti moom tamit daal di koy wuutu moom tamit ku amoon yéene la ci dëkk bi ku amoon ay xalaat la moom tamit liggéey na fa ay liggéey yu rëy ay liggéey yu bari yoo xam ne mënees na ci teg bët ba fii ñu taxaw nii di kër gi ñu nekk ni ci liggéeyu sëriñ Abbas la bokk bi nga xamee ne yàlla dogal nekk fi li mu fi war a nekk ba jóge fi itam rakkam Cheikh Mahamadul Bachir Anta Niang daa ji nekk xalifa borom daaru moom tamit am na ay liggéey yu yoo xam ne sémb ko ci jumaa ji sémb ko ci ay daara yoo xam ne euh, bu ñu ko doon wane luñ mën a teg bët lay doon moom tamit dañ koy ñaanal mu yàgg fi nabiyuna kitaabu qad akmala ma qatlahu wa xayru qad jammala taslimu man jalla an alin wa walad ala ibni abdillahi afdalil walad